gis nga li ñoo wax ci réew mi di wax géwël géwël eh, ñu di ko topp di wax luy cosaanam di cosaanam ku nekk wax liñ ci xam eh, wax naa leen ni ba ba moo sotti eh, benn famille la bu nga xam ni ñenn ñi am nañu xel ñenn ñi amuñu xel famille boo dem ñii am xel ñi amuñu xel nag lu yàgg-yàgg ñu am xel daañu nangu tëdd ci suuf ña ca des war leen pour jàmm am ca famille bi ma ni leen fu géwal mën a jóge gën a yeewu ñañu bokkal rekk la du du leneen kooku famille boo dem famille boo dem ña ca gën yeewu ëpp fa diplomatie dinañu d'accord ci ña ca des war leen ndax ñu mën a jàllandoo wàllu diplomatie la famille boo dem dañu neen diw kët boo dee wax ak moom waxal ak moom nangam dof su ko defee ñëpp déggoo ca dañu ko nëgg dañu ko raay dañu ko naax pour mën ko jariñoo rek yaa di géwélam léegi parce que yaa ko ëpp xel yaa ko ëpp siyaasa foog nga nekk géwélam suñu penc la mag ña ko tëral xikma la ah, xikma pour mën a def lan taxqiqul wuxda bayn al afraad pour que unité unité mën a am ci penc mi looloo tax ñu def ko mag ñu lu nekk jéem nañ ko ci ah, pour dañ ay am dem nañ cee dema dema dema dema dem ba xam nañu ni ki nga bokkal ndey ki nga bokkal baay ki di sa doomu najaay ki di sa doomu bàjjen yooyu yëpp mag ñi tëral nañ ko xam ni ay du fa mën a ñàkk waaw ñu ni ki nga bokkal ndey ñu ni ah meen la boo ko laalee yàqu ki nga bokkal baay ñu ni ah sidit la boo ko laalee yàqu sa doomu na jaay ñu ni ah sa sa sa sa sa sa sa eh, sang la boo ko laalee yàqu sa doomu bàjjen ñu ni ah sa jaam la boo ko laa sant mu ni man Njaay laa sant ñu ne ah yàqu mais li ñu man yëpp def nañu ko nun noo leen déggul noo leen déggul pour lan taxqiqul waxdati rek bayna al afraad moo tax ma ni la aada dana baaxal lëf te fekk baaxul ah dana bonal lëf fekk baax na nit ñooy dem ba lu ne xamat ñu xam lana taxoon ñu def ko